asalaamaaleykum membre de la coopérative d'habitat émergence sociale tey ñu ñëw ak yéen ci visite de chantier bi ñu def si fii si moom mooy nga xam ne mooy site bi nga xam moom lañu tànn pour euh, dérouler fii phase pilote programme logement sociaux ñu leen di fàttali ñu ngi ci phase d'exécution bi donc tey ñu ñëw ak yéen ci ay interview nga xamante nañ jël ladd bi jox ko suñu ay ingénieur suñu technicien nga xam ne ñoo nekk sur le terrain di def liggéey bu mucc ayib euh, ki jiite nga xamante ne mooy maître d'œuvre bi en même temps muy Mor Gueye Sopona bi ak GMC groupe vu la réalisation ñu ngi taxaw su villa témoin bi carrelage def nañ ko peinture def nañ ko tout corps d'état secondaire def nañ ko aujourd'hui pour problème qualité fondation bi ça été trop solide parce que fond de fouille on est à un mètre cinquante la plus petite semelle c'est quatre c'est quatre-vingt-dix on a des semelles de un mètre dix les longrines aussi on a des longrines de quarante donc voyez ce que aujourd'hui man tout ce que je vous lu may ñaan gars yi mooy maanaam fondation bi na amul dara lu ñuy kent ku bëgg a tabax na yéegal on n'a nag ñu ngi ànd ak morgay sopp na bi lëkkaloo ci ak GMG Babacar Dieng man maa ngi tudd xalifa Diallo man maay chef de chantier bi maay toppatoo travaux yi. travaux yi nga xam ni ñoo fi am ay travaux la yoo xam ne yu siir yu wóor ndax dafa am ay contrôle yoo xam ni la ñuy def it amuñu ci sentiment loolu na leer bu ñu ñëwee lépp muy faire. ci ferrailleur bi lañ jëm dañ koy saytu muy béton bi ngay gaze dañ koy saytu muy dose ciment bi dañ koy saytu kon loolu c'est très important ci bâtiment te loolu boo xoolee mooy loo xam ni moo yor bâtiment te ñii taxaw nii ñoom ñëpp ay techniciens lañu te ñu nag ñoom ñoo fi nekk boobu ba tey tojuñu fi dindiwuñ fi kon li ñuy def wóor na kon maa ngi assuréel ñëpp ni leen liggéey bi baax na wóor na na ñëpp ñëw te ñu xam ne nag ku yéex moom da ngay ñàkk. loolu yëpp ñu ngi ci ànd ak uh, suñu comité technique nekk suñu mission de contrôle nga xam ne ay membres lañ ci coopérative bi. saytu liggéey bi saa ne mais aussi et surtout ñu ngi ànd ak uh, waa direction de la promotion de l' habitat social nga xam ne monsieur Mounirou moom moo leen jiite. nous sommes des techniciens de chaise la coopérative d' habitat d' sociale. c' pour vous tout simplement vous dire que ne euh, la qualité des lu dul. Euh, vraiment la solidité et vraiment lu ñu ci souhaité mu am ci parce que coopérative mënoon nañ ci yem chaise mën na ci yem ne ok la entreprise bu ma traité am nañ ay technicien je me fie à service commercial chaque semaine wala une fois par deux semaines ñi ñëw xool li ñuy def pour vraiment assurer la qualité de ce que nous faisons dinañ ñun dinañ am suñu technicien bopp donc mu am lu ñuy wax PV de contradiction ñoom bu ñu ñëw ñu ne ok lii baax na suñu technicien dañuy ñëw xool est-ce que li ñu wax nii baax na donc loolu mooy suñu teewaay fii. et plus précisément waa bureau d' assistance aux collectivités pour l'habitat social nga xam nga xam ne ñoom ñooy def suivi bi ak accompagnement. première chose mooy ñu xamal ne nit ñi ne leen fii opportunité yi da bëri ndax li ci jiitu moom mooy bu ñu xoolee dimension terrain yi 15 sur 15 la donc surface bi kon 225 mètres carrés la te en norme dañuy wax naan lu kii mooy 70 pour cent nga war a tabax. te boo xoolee soixante-dix pour cent yi mu ngi téye kon ay cent cinquante-sept virgule cinq mètres carrés door ko ñun suñu surface bi on a soixante-six virgule vingt-deux ce qui fait kon bu la defee différence entre surface bâtie bu normal ak ñun lu ñu am nii di nga am ay quatre-vingt-onze virgule vingt-huit mètres carrés yoo xam ne des na yoo xam ne loolu possibilité d'extension la loolu muy benn ñaareel bi aussi mooy modification yi ñu ci def xam ngeen ne premier plan yi F3 yi benn toilette donc la amoon mais ñun bañ ñu envoyé plan yi dañu xool ni ak vingt et unième siècle bi ñuy dund nii vraiment benn kër benn toilette loolu moom c'est c'est un peu dépassé loolu tax ñu ne kon pourquoi pas ñu kon ñu modifier def modification chambre parent bi moo am euh, salle de bain ñu créé tamit beneen toilette boo xam ne mooy nekk toilette visiteur loolu tax ci plan yi bees yi da gis ni diis yi yëpp am na salle de bain pour chambre parent mais am na aussi toilette visiteur loolu muy ñaar. ginnaaw bi ñu seetaanee li ñu jëlee ci suñu visite de chantier foofu ci moom mooy. mais ñi beral cant ak ngërëm ki nga xamante ne moom mooy suñu partenaire di Mor Gueye na bi nekk un sénégalais un homme de social koo xam ne jàppale askan bi doo nga ko tax a jóg surtout soqali li nga xam ne moom mooy secteur informel bi euh, moom moo ko tax a jóg mu bëgg ci ànd waa coopérative d'habitat émergence sociale. ngeen euh, lépp loo xamante ne soxla nañ ko pour chantier bi jëm kanam mu ngi ciy joxe cause am dina mettre à notre disposition main d'œuvre de qualité dina jox ay équipement dina jox matériel euh, donc di leen jox dig daje fii ak fan incha allah dañuy dem seetuwaat suñu beneen partenaire muy waa seen karo kër xaadim ndax gis ngeen ci vidéo yi ak même si maison mooy qualité peinture bu mu proposé ak aussi karo yi nga xamante ni moom la mettre à notre disposition merci beaucoup à